ne démb rek la ko sëriñ Modou Kara Mbacké nooree ni woo di wax di ko wax ni mu bëggee ci Talla Sylla mii waaye di ma yóbbante kàddu cant waaye di ko yóbbante kàddu cant ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci sëriñ Mountakha ci sëriñ Mountakha Mbacké ndax da ngeen faa jógee rek ndax da ngeen faa jógee rek sëriñ Mountakha yónnee ko oto mu ne ma nanga ma santal Talla mu ne ko nanga ko santal Talla Sylla mii ndax pas-pasam ndax pas-pasam ak fidélité ak fidélité ak fidélité euh, ak engagement am ak engagement am waaye santal ma Cheikh Mountakha nee na nga sant ko sëriñ Mountakha su ma yendoo liggéey Serigne Touba nee na yendoo liggéey Serigne Touba Serigne Mountakha julli timis Serigne Mountakha julli timis yónnee ma oto yónnee ko oto mu ne ko yónnee nee bi da neex na waaye ki mu yónni waaye ki mu yónni nee na bokk na ñi gën a jege nee na loolu la wax léegi Serigne Modou Ngom mustain nee na mustain mu sëñ Moussa Nawel mu sëñ Moussa Nawel man mi di wax ak yéen de nee na moom di ko ko am na mustain moom am na confiance am ko jege la ku ko jege ku ko wóolu la nee na mu ni sëriñ Modou Kara. addiya ji neex na. addiya ji neex waaye ki ko indi. waaye ki ko andi. moo tax mu saf saf. moo tax mu saf saf. nee na xam na Moustapha li mu. li mu présenté si sëñ Mountakha mii. te ci caméra yi la waxee nii. Masaalikul Jinaan bee. nee na Masaalikul Jinaan bee. ak fu mel ni moom ci bërëb. ak fu mel ni moom ci ay bërëb. bala faa sëriñ Mountakha teg tànkam. bala faa sëriñ Mountakha teg tànkam. nee na Moustapha dina fa ñëw ñetti fan. xool xool fu mu war a dugg fu mu war a jaar fu mu war a toog fu mu war a waxee nit ñi nee na foofu kaw tamit koo wóolu doo ko wax nit ñi kon nee na sëñ Modou ñu ngi wuj yeesal cofeel ci yow ak njaboot sëriñ Babacar Ngom gépp nee na yow dootu wax ci yow ndax yéen ñaar benn ngeen doo leen ñaar ndax koo xam ne bi ngeen gis sa taaw lépp yaa ko doon dox lépp yaa ko doon dox yaa ko doon dox yaa ko Murid Siise xar yeeg ba ci mbubb mi sol sax. bisum ngénte la bisum la nee na yaa indi yaa ko andi jox ko ko ni ko Serigne Saliou Touré moo la ko jox nee na diggante nag day weesu ay waxante ak ñaan rek lañ ciy teg mooy ñaan yàlla mu sàmmal ñu colère gi